jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan wasaare làmb gis ngeen combat bi doxoon ci diggante serpent ak caatu yaraax caatu yaraax wanati na boppam wanati na boppam ndax arbitre bi ñu sifflé may ñu sax fu ñu waxee dimanche wala samedi 22 février 2020 may ñu ko caatu yaraax waxee arbitre nee na prip mu dox ci kaw adversaire am muy serpent daan ko jël bu amul benn werante serpent lamb noonu la daan nga ci lamb am ndam àndaatal ak say mbokk àndaatal ak say xarit àndaatal ak say am di jàmm ñëwaat ci lamb lamb bis bu nekk mu wan la boppam euh, caatu yaraax doon na xale boo xamante ni wane na boppam ci lamb ndax waxoon naa leen ko fekk naa ko Gambie mu wan ni ji am na lu ko jaral am na ci ndam bu sedd bu guy ñu koy félicité moom Caatu Yaraax mbokk yi léegi léegi dinañ leen dégtal Caatu Yaraax ba mu demee ci ay mbokkam nan la def ak ñoom léegi léegi ci wasaare làmb sëñ Bass yaa baax yaa gore ni may waxee yow nii ñu ngi kër Caatu Yaraax fekk fi ay maamam fekk fi yaayam fekk fi ñëpp yaay booy maa ngi lay nuyu. maa ngi leen di sant. di leen ñaanal yàlla gudda fan gu ànd ak barkeeg wér yàlla may leen wér ak gudda yàlla yeggale seen ndaw ci kàttanu yàlla ak Yonent ba ak Seex Naama Tijaan ku xam ne xaadim maa jur yaayam mu dëkk mu toxu dem Kër Masaar xaadim bëggal ma boppam ba ni du ci man ba tey ba muy dem loxoom la ma tàllal ndegam faawaat dawele rek mooy sama ma bokk ci xeet xeet beneen xeet boo xamee ni moo dun aali saaray sama maam lépp lu nu ñaan ci yàlla ak yent ba yal na ko yàlla moo tax te ngeen bokk koog moom ci kàttanu yàlla yonent dafa am lu may wax nag koñ bi maa yàlla daf ma booleek ñoom ba dara dul dara ñu bëggal ma seen bopp mag ak ndaw xal ñëpp xaadim bu yëngoo ñëpp yëngu Bas Ndiaye du noppalu benn yoon surtout Aminata Niane bi ki yore euh, simeekaay yi ma du noppalu benn yoon Aminata Niane ak Maodo gisee ko jur yaraax ba mu daj laa wax laay ñaanal yàlla ak yonent ba yal na fi jàmm am te yàlla yokk wërsëg wi njaboot gi barkeel dellu gannaaw nag ñi fi ne te jiite doom aadama yi gannaaw yàlla ak yonent ba ak Seex Naama Tijaan ak sëñ Babacar Male yal na leen yàlla ak ba jàppale jàppale leen ci njaboot gi bootal leen njaboot gi muy ñi jiit ci maire bi ak ñi nga xam ne ñii ñi ngi wut lu ñu yeggagul jàpp ci yal na ko yàlla mot. lamb ji seetaan nga ko. seetaanuma ko nag. sa jëkkër. dama bëgg sama jëkkër ndax Fatou Fall mais mooy sama taaw bu jigéen moo jur xaadi moo jur eh, eh, caatu yaraax yàlla boole ko man. may liggéey usine usine bu ma liggéey ànd fa moom te mosuma toroxal lu ma bëgg mu bëgg ko lu ma bañ mu bañ ko ma may ko ku ñuy wax Tafa Jang Tafa Jang di jullit di yaaram du dóore du saaga du xaste du topp tànku jigéen naan ko foo jëm heure boo demee këram ndox la may tàngalal ni ma jogal sangu bu ma sangoo ba pare julli te mag ku ko ni sangul julli yaa moom deseetuma ko dara Gàdd jur ko moo allah julum yar ko ci teraanga ak sutura heure boo xamee ni ñëw na ci dëkk bi am soxla balaa dem kër Gàdd sama kër lay jëkk ba tey ci mujj kon maa ngi sant yàlla di julli ci Yonent bi di sant samay mbokk nag di sant samay dëkkandoo ndax dëkkandoo duñu dëkkandoo ay mbokk lañu. ñoom ñoom ñëpp bu yóbboo ma ni maa leen dañ ma def kilifa te aw ma dara manuma dara waaye nag am naa yàlla ak yonent ba ak samay deret ak sëñ Babacar si yàlla ak yonent ba ak samay waajur ak sëñ Babacar ku xam ni sama loxo bii tegu mosuma ko teg ci lu bon mosuma ko wax ci lu bon lu dul daw di liggéey ba am juróom-ñett fukki at bi su tey bii ma toog maa ngi sant yàlla di julli ci yonent bi di sant njaboot gi yëpp di sant sama njaboot ak samay mbokk yëpp nag. ndax ñii fi taxaw ñëpp samay mbokk lañu bu mbokk na bu fekkee boo bégee mu bég boo meree mu mer ah deseetal luñ ma dara. jërëjëf yaay maa ngi leen di sant di leen ñaanal yàlla ak yonent bi xaadim lii yal nay njiglaayam ci kàttanu yàlla ak yonent ba ak Seex Naama Tijaan ak koo ko xale ci koñ bi yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla ak seeni kilifa ndax gone lu mu def ndeyam ak ndeyam ak baayam a ko bàyyi bu ñu bàyyi bu ñu seen kili bu ñu amul woon kilifa bu ñu leen teree dañuy bàyyi waaye maa ngi leen di sant di leen ñaanal nelawatuñu guddi nelawatuñu bëccëg ba bis bi am li ci biir yëpp mënatuma ko wax li ci biir yëpp mënuma ko wax ndax sama yaram neew kii nag sama doomu ndey sunu ñaari baay bokk ndey ak baay tey gannaaw yàlla ak yenent bi nun noo fi des di mag mu dawee ca këram ñëw toog fii kon maa ngi koy sant di ko gërëm maa ngi sant sama njaboot bi. yaay booy tur bi nan la. Xari Sall. waaw. tey seen doom am ndam ci làmbam ji mu demoon ban yëg-yëg nga ci ah, di kontaan rek kontaan bu baax a baax a baax a baax di sant suñu ñaari waajur yi di sant suñuy maam. barke maam Maodo Malick barke sëñ Babacar Sy yal na ko yàlla toftalal ndam yu bëree baree baree baree bare te yéen ñi mu àndal tam ngeen di liggéey yal na yàlla defal leen jàmm may leen wér ak wér le kontaan nañu torop ndam li mu am tey yal nañ jig laayam yal nañ jig laayam kontaan nañu torop kii li mu wax dëggal ndax suñu ñaari maam bokk ndey ak baay suñu ñaari yaay bokk ndey ak baay macha allah xaadim nag di xale bu baax di xale bu yaru di xale bu am jom xuloowul ci dëkk bi nag xeexul ci dëkk bi waxul ba yàqu doxul ba yàqu fooyewul boppam dëgg yàlla bëgg ay maamam respecté ay baayam respecté ay yaayam kon nag ñu ngi ñaan yal na yàlla ndam li yal nañ njiglaayam yal nañ njiglaayam barke Seydina Muhammad sëñ Babacar Sy suñu barke maama suñu barke baay yal na ko yàlla wallu jërëjëf maa yaay am ngi am jàmm yaay caatu yara waaw maa yaay am de mu bëre combat bu rëy diggante ma serpent ban yëg-yëg nga ci am ah yëg-yëg bi ma daan am rek laa am yëgu ndey doom rek njureel rek waaw laa ci am. seetaan nga combat. seetaan ma ko de. lan moo tax loolu yaay booy. ah mënuma ko seetaan. ñu ko direct 2STV. ah mënuma ko seetaan de waaw. ndeysaan ba nga yëgee ni mu ngi ci digg géew bi ban yëg-yëg nga am. ah yëg-yëg njureel rek waaw. noo mel moom. ah. noo mel ak moom caatu yaram. ah caat. ah caat moom wax dëgg yàlla ba ma ko juree ba tey. mosuma am lu metti ci moom. yërëm na ma. yiir na ma. baax na ci man baax na ci ñëpp sax laay wax. am na yar am na teggin. waaw mosuma def dara lu ma metti wax dëgg yàlla ba mu dee xaadi ba tey mosuma def lu ma metti su ma waxee sax mu xam ne sama sama kanam saase na. mu naan waa yaay daal di reetaan man ko waa du dara. yàlla xam na ko caatu moom amul benn problème ci man dëgg yàlla. mu doon bëreeg sa doom serpent loo koy wax. ah mu doon bëreeg sama doom serpent may ñaan rek ñu am ndam rek léegi am nañu ndam yàlla yàlla def moom tamit bu ëllëgee bu bëree mu am ndam ñoom ñëpp ay doom lañu waaw ñoom ñëpp ay doom lañu buy ëllëgee moom yàlla na ma yàlla ko yàlla may ndam waaw. mu ngi ci yoon ba waaye lu mu wax ne sama yaay. ah lu mu wax ne sama yaay ah yaay ak yaayam ñëpp ñii ñëpp ay yaayam lañ ñii ñëpp ay yaayam ñii samay mag lañ kii sama wujju peccal ko ñoom ñëpp boobu ba léegi tooguñu kii mooy yaayu kii toog ci cimukaay bi ñoom ñëpp boobu ba léegi tooguñu ñoom Bas Ndiaye xale yëpp boobu ba léegi tooguñu su guddee duñu nelaw fii la ñuy tëdd ci bit ñëpp a sonn xale yi ñoo gën a sonn sax caat waaw xale yi sax ñoo gën a sonn caat maa leen di gërëm di leen ñaanal yàlla lii ñu bëgg yàlla na ko yàlla def ci kàttanu yàlla yonent bi te bu gënee waa koñ ñëpp fii boo fi ñëwoon ñëpp bu gis nga ñaari baas yooyu dafa fees del ñetti ci lañ togg waaye doyul sax xam nga ni bu doon dafa kii waa koñ bi kenn du fi taxaw waaye wax dëgg yàlla dafa fees del maa leen di ñaanal yàlla daal li ñu bëgg jeex caat yàlla na ko yàlla def. bas ñu génn kon. ñii maay seen mag. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu. di baalu ñëpp àq. ndax jii daal dañoo kontaan. ndax sunu caat caatu yaraax mii ah gàcceelu nu benn yoon saa su bëree rek andil nu ndam li ñuy ñaan yal na ko jik barke Serigne Babacar di gërëm waa yaraax yëpp ndax tey ñun sax bu danoo yéex a ñëw waaye ba ñëw kër gi sax ñu fu dugg te xam ni dëkkandoo yi amuñu jàmm xarit yi amuñu jàmm yaay yi amuñu jàmm ñëpp a ngi toog di xaar caat di jàppale yaayu caat ndax sañu rakk ji dafa baax si ñun sore ci ñun kon nag tey jii bu amee bés ñun dañuy taxaw te caati bëgg yaay ba bëgga dee bëgga nu fu mu nu gis suñu sagal fu mu nu gis suñu teral kon nag caat yàlla na victoire victoire bi yàlla na ko jik di gërëm sunu yaay fantawele mi di sunu yaay di sunu lépp tenir nitu li nekk kii bu amul lu baax kenn du ko am parce que dafa muñ faala dafa muñ ci sëyam dafa muñ ci ay magam dafa muñ ci ay yaayam bu boo ñëwee ci kër gi da naan moom mooy rak parce que dafa tëdde ñëpp war ka victoire bi yal na jig sa caat loolu lañ koy ñaan loolu lañ koy ñaan yal na nekk roi des arènes serpent mi mu daan na tey yal na ko yàlla may bu amee combat moom it yal am ndam ndax ñun ñun ñoo yaay ñëpp ñun ñoo yaay ñëpp kon nag yal na ko yàlla may ndam moom it beneen bis di gërëm sunu maire wu yaraax bii ndax jàpp na ci barki Dembo Ndiaye bañ ko souhaité meilleur maire ba mu taxawee dafa gërëm dafa gërëm caatu yaraax ni nanu ko ñaanal caatu yarax yal na andi ndam maire yarax barki démbo ñaay alxames andi fii fii ay tiset yu baree bare ak xaas bu bare kon nag ñun dañ leen di gërëm waa maire yi amuñu seen fay yal leen yàlla fay ñoo ngi gërëm ñëpp ñoo ngi gërëm ñëpp. wax nga na ba pare aw burum ko wax na ba pare. wax na ba pare. jekk tagal wax na ba pare. wax na ba pare ah, am lu baax na yaa ko liggéey jàngeen waxal ak man xaarim jeng day am lu baax. xaarim jeen dina baax ndayam baax na maamam baax na baayam baax na ki juruma baayam baax na xaadim as la di dammeel ak teeñ mari ngooneeg sabal saaxewal fan maay maamam te kumbay teeñ maali kumbay buur mari ngooneeg dammeel saaxewal faalay maamam xaadim lat joon ngooneel maamam xaadim jeng saa coro maamam borom ndukumaan borom daaru jeng borom tuuba Abdou Aminata Jangay maamam sëñ Touba ka seexal xaadim sëriñ la daara la yore day jàngale day dal alxuraan ku ko tooñ mu duma ko boo demee mu daggal tool may la fasu su naaru góor xaadim daa baax ndeyam a nga daa liggéey kër baayam xaadim dama ko ne boo yeggee dóoral mu daanu ca la ma ko waxoon la def ca la ma ko la Buri Fall da mel ma tàkk yuga faal yi garak ma fetel ya borom bali ndogal xaadim da mel ak teeñ la ñuul taxu koo ñaaw di mayee jaam di mayee fasu naaru góor am ay tool di ko mayee yor daara di jàng di wàccee kaamil jàng saara coro dafa door daan ko yaa ko lamba ngi noonu sëñ Bas lamba ngi noonu yaay booy kilifa gi maa lay siyaar waaw ma yàlla na man maa ngi tudd Mbodje Ndiaye Mbodje Ndiaye lanu euh, caatu yaraax waaw caatu yaraax papam maire bi doon wax nii léegi muy Garda ak Kumba bi jur sama yaay ñoo bokk ndey ak baay man tey jii lii sama yumpaañ wax man seere laa man may taawu kër gi tey ji lii mu mënu ko wane mënu ko wane ñàkk mënu ko wane bañ ndax yaru na yëg na ay ay magam yëg na ay yaayam yëg na ay papaam kon tey victoire bi ñi ngi ñaan ci kàttanu jëmbi si naa Mohamed yàlla na yàlla def mu jikko wa këli itam am tey da da ngay am ëllëg nga ñàkk kon nag mooy moom moom yal na ko yàlla may xolam muñ yàlla may ko ay ndam ndam yu baax ndax ay sport moom noonu la rek tey moom li ñuy wax reen reen njàmmi la dafa ko yàggal fooy damee waaye nun moom defar nañ ko lañ ko war a wettuwaar bi wéttu ma ndax man bi ñu commencé wettuwaar bi barki rasulullahi barki Seydina Mamet dama ne ku yeex doo gis combat bi ku yeex doo gis ndax yaayam ji liggéey na ko ci kër papaam te xaarim vraiment bi mu bi mu nekkee bi mu juddoo man maa ko teewee man maa fi xarim nga teem keroog dafa am benn waay bu fay ñëw dafa am lu dana kii giñ ñaa ci yàlla kuy tekki lay doon te xamuñu kooku de xamuñu ko ba maa ngi koy rappelé sax temps yii passé loolu tax xaj na mënu ma ko wax ci interview bi dinaa ko wax kon am nañ ci yaakaar yaakaar yi yal na ko yàlla mottali barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp sant nañ baax a baax gërëm nañ ñëpp combat bi nag tubaar fa kàll yàlla na yàlla daal li ñu war a ñaanal na ko yàlla li loolu nag wax naan euh, nu na cir mu nar a neex su xeeñ yàlla na yàlla mosi cet yuuxoo yi daa mel ni caatu yaraax dugg na xale baa ngi noonu ñu bis doomu yaraax baa ngi noonu caatu yaraax a ngi noonu di ñëw sëñ Bas lii mooy làmb sëñ Basiru xale baa ngi noonu ci kaw tàllal na loxoom aj na loxo ba caatu yaraax a ngi noonu ñibbisi na ci ay mbokkam ñibbisi na ci ay am di jàmmam ñibbisi na ci ay xaritam lii mooy làmb jóg na fi la juddoo fi la fekk baax fi la waaye tay waa koñ bi génn si nañ wuy si ko moom caatu yaraax sëñ Basiru xale bi fii la juddoo sëñ Bas fii la màggee sëñ Basiru fii la fekk baax hey sëñ maa ngi nii ci kaw caat dugg si nga foo xamante ni say mbok say xarit say am di jàmm ñëpp gàttandu la génn ma dem sa yaay mu ñaanal la wax cofeel gi mu am ci yow ban yëg-yëg nga am sant yàlla rek dañuy sant yàlla parce que lii kenn xamul nu mu doon dañuy sant yàlla rek waaw du man ko wax yàlla la si yaraax la gis nga ñu daal la demee maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp parce que lii xam nga mbooloo mi boo la gisee war a mën a rey sa bopp bu dee da joxe ba sax nga war a joxe bakkan lii doo dem di ñàkk yàlla sax du la seetaan combat bi ni nga ko bëree dafa jaaxal ñu bari arbitre na prix mayoo ko sax fu mu yàkkee nàkkam wa xam naa ne bu ñëwee day neex parce que bërikat la ndaanaan la te man tamit damay ñëw bu dayee man rek du yàgg loolu moo waral combat bi demee nii. ni ma bëree moom ba daan ko serpent. ni ma bëree moom xam naa ne bu ñëwee noonu laa koy jàppee daan ko dama ko noonu buddi ba ci kaw xam ne mooy loolu. yow daa mel ni yaa daw forcé ko pour daw teel xam ne damay ñëw mu ñëw arbitre dafa sifflé maa ngi gërëm ñëpp Caatu Yaraax a ngi noonu. Cheikh Basirou maa ngi lay woo mënuma laa jot. Kër Moussa Ndoye lañ doon dem. waaye dafa am baas bu fa am. daa mel ni dañuy tourner jëm ca kër ga. hey xale bi defatina exploit. eh ah sëñ Bas a ngi noonu maa la gëm sëñ Bas barki yonent bi sëñ Bas a ngi noonu ay sëñ Bas borom mbég mbég taar bi maa la doon woo waaye làmb a ngi noonu sofër dawal ndànk déema waxal sofër bi sama cameraman bi mu moytu ko na daw ndànk mu ngi nii mu daw ndànk Basiru Kër Moussa Ndoye lañ jëm am na ndam waaye nee na ndam li lu muy rëy rëy da tegaat ci loxo magam muy Moussa Ndoye lamb xale yi dañ koo bëgg làmb war nañu koo jàppaleel li may yëg ci sama xol bi muy sedd sëñ Bas nga xam ne lamb dong ko mën xale yi nekk ci làmb duñ ay yaafus duñ ay yambar ay borom jom lañ ñu am famille lañ gu bari féete seen ginnaaw. ndeysaan waxoo rek mu tourné. waaw Nokia yaa ngi ni toog ci suuf. ndeysaan Nokia bu nekk doomu yarax la. wu leer na. waaw te caatu yaraax mu ngi ci ginnaaw na ko yaa moom journée bu mu am rek dina mel ni journée caatu yaraax nañ ko bàyyi xel bu baax a baax yaraax a ngi nii sëñ Bas lii de gën naa koo gis mbooloo mi sëñ Bas boo bëggee dégg dëgg gën naa ko gis ndeysaan ndeysaan eey làmb waaw waaw Bas lii boo ko bëggee wasaare làmb nga koy ame dañ leen di toppal caatu yaraax ndam lim am ci kaw serpent ba ni muy duggee ci biir këram en direct wasaare làmb Serigne Bassirou borom mbég meeg taar mi xale maa ngi noonu dégg nga supporter yi neen ko fii yaa ko moom. naa ni promoteur bi la tëgg tey muy Fallou Ndiaye pare na pour tëggaat la. maa ngi koy xaar man yeneen promoteur ñu ngi ci ginnaaw. ku ñëw rek i naa la porte yi ku ñëw rek ibil naa la porte yi man maa ngi fi ngir làmb c'est lamb làmb dafa doy waar boo fi nekkee di laaj ay mbër da ngay doo sa bopp noonu loolu mooy waral noonu ci làmb. dëgg waa waaw mais ñu ngi sant bu baax baax. waaw ñu ngi bu baax a baax. ma ngay wëri la jëm day soobu ci ndox ba. lii lu mu doon demal. parce que ay caatu yaraax a ngi ne ci biir géej gi bas ma nga soobu caatu yaraax a ngi noonu tekkeegul ngemb li li may wax ak dem na ci géej gi soobu ndeysaan nuyu na maamam nuyu ay mbokkam ma nga ca géej waaw dal làmb rang gaaw rang gaaw aja jaat waaw ma ngay daw Basiru doomu Yaraax jaagi noonu yegsi na ci ay mbokkam bas taxawal noonu bas ramuy gaaw bas gaay ñu ngi fii ci yaraax waaye fekk nañ fi euh, caatu yaraax am na ndam barki démb nag ma waxoon ci open press bi lu garaaw tey ma gis lu mel noonu ci làmb mu daan jubal si sa kër lan la seen diggante yéen ñaar ah, mooy li may wax rek yarax ñu ñëpp benn lañ yaraax ñu ñëpp benn lañ te dafa am la nga xam dafa am solo tey félicitation félicitation félicitation yàlla na la jig yàlla na la jig bii a tuuti waaw toogal maa lay dalal toogal toogal macha allah nga wax waaw li tax ma wax li tax ma loolu du lu ma wax par hasard kii suma rakk la wax naa la daf ma jox cër lu muy dugg dama koy yëg tey kontaan naa Moussa moo daan te li ma wax moo am waxuma ko pour dara nee naa ko fi nga teg sa tànk bu ko bàyyi démb si guddi mu jox téléphone ma ne ko damay voyage mais barki Serigne Babacar si yaa tax ma voyage man si télé laay wax te li gën a neex dama dem di ko ñaan lu jil tey kooku am lu ma wax ku la rek dinaa ko ñaanal waxatuma kulo bëgg ba def la mag mu ñaanal ko teel a tax muy xale ba nga xam ni fi mu teg tànkam yàlla bu mu ko teggi yàlla bula dara paq xadim li nga bëgg sa xol yaa ko xam yàlla na ko yàlla defal ku ma jox cër la man maa la waxoon si open press bi nag dañuy daan ma waat parce que dafa am fu ñu ko teg nee na combat bi du combat xaadim suñu combat la bi mu koy dox la may wax bu mu ko jëlee dafa ma wax ba nii daf may wax lu muy def dafa may woo wax ma cër bi ma jox la ma delloo ko ko wax naa ko li mu bëgg si làmb yàlla na romb Moussa Ndoye di dem. ndax wane na ko bi mu daanee bi mu jub jubal see foo jëm ne kër Moussa Ndoye ñu dem ba foofu gis fa benn baas. waaw waaw mu mel ni am na lu mu yëg. loolu la man bi muy ñëw. dañ ma woo téléphone ni ma foo toll ma leen maa ngi nii yëg naa victoire bu yàgg mu ma ka ki may wax dafa téléphone laa wax de mu ma kañ yëg victoire bi man ko yëg naa ko waaye une heure tey bëccëg. mu ma lan man ko une heure ci bëccëg laa yëg ñu day daan kooku daf ni ma ku mënul toog ci kaw ndox mënul wax ba kii du daan tey ku toog ci ndox surux waxuñu ko pour hasard nii wala leneen ci ci tel la ñuy wax daf ma jox cër mu bëgg ki nga xam ne daf ma ko bëgg muy bàyyi nguuda Sarr da ko lu ne la koy wax ku ko bëgg bëgg ma ku ko bëggul boo mënoo ma bëgg yàlla xarit moo joxe cër booy yarax yëpp baax nañ moo xewle tey nañ xam ne dafa xewle tey ku xewle ñuy wax si yow ko ayee war sa moome tey du ñu wax si Moussa Ndoye si xaarim la ñuy waxtaan xaarim kar yaram yàlla bu si pakk am yàlla bu si ndog-ndog am. seetaan nga combat bi. seetaan nga ma ko ba léegi nii. ma bàyyi ko mu nuyoo mu wax la mu wax la li mu bëree ak li. Euh, rendre ma compte euh, la kay. waaw daf ma rendre gu sama rendre ma compte fi mu toll nii léegi foog mu rendre ma compte ma bàyyi ko ba suba ñu waxtaan. yaa ngi toog sa liet naa avant tout am nga ndam bu rëy si sa diggante ak serpent lan ban yëg-yëg nga am. waaw d'abord dañ koy nuyu bu baax a baax ndax daanaka jamono yëpp ci làmb ji la nekkoon di ci sonn trop di voyager fu nekk mu dem fa loo xam ne da ci jël alalam di ko def téye ko ko macha allah. xëy na def na ci ay sacrifice yu bëri tamit pour ndam am mu jaral ko ko ndax bañ pare yaakaar naa bañ àndee stade da nga naan foo jëm ne la kër Moussa Ndoye lañ jëm caravane bi gars yi ànd ak man ñëw ba fii man leen dañuy continuer parce que kër Moussa Ndoye laa jëm bañ ñëwee ba Feeraay fekk fa baas bu weex léegi ñu jàdd tableau Feeraay tourné mën na la nañ jëm kër ga bu ñu jub ñu amee jot ñu dem ba ca moom ñu toog waxtaan mu ngi nii muy grand frère boo xamee ne tamit dafa ñëw jël yaraax njaboote ko téye ko ci loxoom ne su may rak laay uuf léegi nag comme ñun moom moo ñuy teete ndax man ba may dugg bëri sama premier combat dama ñëw ci écurie mu jox ma làmb jooju mu bëri daan tonnerre mu ñëw gunge ma ne ma dama jox combat mu jox ma combat mu dem daan leeri fal ci moom yóbbee sat falaa commencé nekk mbër daanaka mu def ma mbër bu heure bi kon dañ koy gërëm bu baax baax parce que tamit nga yaraax bëri na mbër comme ni wax nii rek mais dañu manko di diisoo ndax man ku ma jox làmb balaa dara balaa la dama naan ko ne ko ah ma ne ko ah diw dañ ma boo jox mun a mu jëlal dañu daal sama xel dal même gars yi bu ñu demee sax ñu naan ki nga bëral dafa bëri doole léegi léegi léegi ma leen sëñ bi mun na wax ma leen kii mu ko jël mu def ci lu ci war yëpp ñu koy gërëm bu baax a baax di ko ñaanal yàlla fi mu bëgg a yéeg ci làmb yàlla yegale ko fa VIP xam nga mën a bëreeg moom waaw moom dégg daal di nekk roi des arènes yàlla na ko yàlla def ci moom. nga dugg si gis serpent mu dugg si. ñëw ànd ak mbooloo macha allah yow it nga àndoo mbooloo bu bari mën nga maa wax sa diggante ak serpent lan la woon ak bëre bi nga bëreeg moom ak façon bi mayoo ko sax mu mu mu mu xalaat man ba may wax dimanche ak ba ma naan samedi 22 février 2020 yeggut sax nga daan ko. waaw yow dama la jox exemple rek boo seetaanee lamb Moussa Ndoye est-ce que mos nga ko gis muy déglu adversaire xaar bi sax bu yàggee da koy soof moom loolu moo tax erreur bu amee gars yi naan fii fekk ndaanaan mooy mel noonu. tey serpent am na lu Moussa waxoon ci open press mu ne la ci côté bi yëpp pare nañ ko mu ne la nga ne ko day song mu ne la pare nañ ci lépp lu mu mën a am pare nañ kon tey doo ñëw di kontaan kii mu lay may kattan di la entraîné di la sport ba nga nekk ci benn physique bi ngay jaaxaarlu ko le xam ne serpent moom boo jaaxaarlu moom xam ne caatu ko doole bu doon naataango caatu sax nga ne combat bi naxaw métti mais su ma ko yaagaloon la ñu waxoon yàlla dafa yàlla nga jógee ci serpent léegi fan nga jëm. waaw fi ñu jëm daal mooy lépp ci làmb la rek ci làmb lañuy ñuy tàmbalee di yem ci làmb ndax comme mag ñu maanaam ñoom suñu grand yi dañoo baaxoo naan fu ku ñu jox chance ñu jël kon lépp dañ koy bàyyi seen loxo parce que duñ fi nekk di tudd benn tur wala ñuy kii ak noonu waaw. mais da mais dama fàtte sax avant ñuy ñuy wax ci loolu waxoo ma combat bi nan nga ko bëreeg serpent parce que dafa taxaw arbitre bi laaj ko. laaj la pare na sifflé rek lu ngeen bëri. waaw serment maam sànq dañoo jàkkaarloo. arrêté ba muy sifflé ma tibb suuf laxa sama loxo. miime taxaw mel ni ku indi xeex. moom aussi tamit mbër la boo xam ne day zongale li ko arrangé rek mooy mu daw jàppante ak man pour moom atu. te xam naa ne kii songeek man foofu noonu comme forum la man tam waruma ko mën a xaar bu ñëwee war nañ mën a juwoo dafa méb jóg rek man ma wàcc. ba mu wàccee ma baraake ko ànd ak moom di tourné ba mu tëdd noonu laa bëree ak moom. benn song benn jéel. la benn jéel la waaw ndax jéel boobu moom da nga koy assuré mu jeex sa waay la ma ko expliqué woon tamit Moussa jàpp naa mooy combat bi gën a gaaw ci at bi. Ah. waaw jàpp naa ko de. ah xëy na. combat bi na 20 secondes sax. combat bi gaaw na trop jaar. déedéet ma ne 5 secondes. Ah, waaw lépp ci yàlla dañ koy delloo ci loxo yàlla rek mënuñu yàlla suñu borom mu mën parce que ñun ay ndaw la ñuy jàng ba léegi rek waaw loolu moom man jàppoon naa ne sax mën naa bëri foofu 30 minutes tey wala une heure temps wala mu ëpp ko mais da ngay ñëw suñu borom yombal la ko trop xamoo lan la mbirum suñu borom la ak borom xol yu rafet yi. sa diggante ak waa Yaraax lan la. waa Yaraax ah waa Yaraax de ñoom xëy na dañoo yeewu comme yeneen gox ni mu yeewoo parce que waa Guédiawaye dañoo yeewu ci làmb waa Pikine dem nag ba Yaraax ay jamono bu njëkk ñu fi nekkoon. boobu Euh, ñu ñëw fekk gox yooyu développé ci yaraax léegi nag waa yaraax dañoo yeewu bëgg def nii ñëpp di def ni Pikine di def ak ni géej waay def Pikine da nga ne Pikine de yaraax boo ñëwee waa yaraax waa ngay fekk ba nga ñëwee open press Moussa Ndoye nga fa njëkk fekk mu jiite ñëpp kon macha allah côté boobu ñu déggoon nañ ci duñ ci réeroo ci ay kàddu loolu mooy problème yaraax yaraax ñëpp ay deret lañ lébu géeg waalo géeg ñëpp ñoo bokk ndey ak bàyyi comprendre nga ñëpp dañuy sot kër dugg rek sa wala sa mag mu fay kon dara xaju fi jàmm rek moo fi xaj ñu lay jaajëfal bu baax ndax xam naa ne fans yi namm nañ la te liñ bëgg a téye ci waxtu da ci yow day xaw a baax. waaw salaamaaleykum maa ngi gërëm ñëpp nag di gërëm waa Yaraax parce que amuma seen fay waaw di gërëm maire Yaraax di gërëm ñi nga xam ne jàpp nañ ci combat caatu Yaraax yëpp ku ci mel ni Ismaïla Diallo di gërëm Fat juuf di gërëm Fat juuf bu baax euh, di gërëm waa rax ñëpp ñoom euh, waa Uniparco xam ne waa di gërëm saal Diop Euh, di gërëm monsieur le maire euh, bu Kër Massar aussi Moustapha Mbengue di gërëm waa koñ yëpp sa club Thiatou Yarakh ñëpp maa a a a baax asalaamaaleykum may yëpp aussi tamit écurie Yarakh yëpp maa ngi leen gërëm bu baax jàpp nañ ci combat bi waaw. Moussa looy wax. waaw li may wax mooy dama koy féliciter euh, yéen bi ñu ko joxoon yéenu na ko oyof na lool yàlla na yàgg di oyof vraiment amuñu lenn lu ñuy wax tey dañuy ñaaxaat rek mooy ñi nga xam ne ñoo nekk Yarax muy autorité autorité yi nekk Yarax nañuy gën a jàppale xale yi xale yi dem autorité yëpp nañ jàppale xale yi tey ñoom ñoo fi nekk xale yi ñoo fi nekk man la wax maa maa fi mag te xalalaa laa comme ñoom mais di souhaité tax di te ñun dañoo am dañoo am habitude bu ñuy wax sunu sunu kilifa ñëw dañuy bàyyi lépp ndax tey si ay loxoom lañ jaar xaadim tey jaar si loxoom kon sant yàlla tey bu ma newoon damay wax mu jóg dem du wax mais c'est normal mooy kilifa gi xaadim daal li ma wax li ma waxoon laay wax si gàttal fonk na ñëpp respecté na ñëpp yaraax topp nañ ci ginnaawam lii bum mu ci bu ci gis succès defagul dara nag. animel dafagu fi dara day door xal la bu nangu xale yëpp nangu nañ mais moo xewle tey moo xaat ko nit bu xewlee da xam ne moo xewle tey école de Ablaye Dieng tey école de lutte Bathia Mbaye keneen ak keneen ki lépp benn la ku takk ngeen ma lay wax yarax kon tey moom mooy suñu kilifa mooy sunu lépp moo fi nekk. tey ñun bu ñu ba bëgg làmb grâce à lui bu demee bay sonn si làmb grâce à kuy takk ngemb di mbër jaar nga ci loxoom lu mu gàtt gàtt nee na la nee na benn galgal bi wala benn mbot bi wala benn dóor bi tey ñëpp dañoo fier di ko gis tey ku mu gisu sëgg yarax ku fi takk ngemb moom du la di sëgg kon sant yàlla liñ ñàkkoon ñoom si làmba yàlla nañ leen ko remplacer ba leen ko defal yàlla mën na ko te yàlla na ko yàlla def xaarim dana moo sax Moussa Ndoye yàlla na doon roi des arènes moom yàlla na doon roi des arènes moom tamit dama koy ñaanal li ne si man rek laa koy wax li newul si man du ma ko wax xale la ba nga xam ne ku am dégg-dégg la ko am yëg-yëg la ko am respect si nit la moo xale yi si ginna a nekk si ñëpp xale yëpp nag mais xaadim moo xewle tey du ma fi gërëm kenn man du ma gërëm sama bopp du gërëm kenn xaadim yàlla na yàlla jàppale bis bi yàlla na ko oyof lool te yàlla ko muurloo yàlla na ko jig bu fekkee mag dina ñaanal rek mu dal yàlla na ko lii dal yàlla na yeneen combat ñëw laajloo ñu ko kenn leen ko jëlal kii néew ñu ko jëlal kële liggéeyam rek mooy wane ki mu war a bëreel kese liggéeyam mooy wane ki mu war a bëreel yeneen mbëri si yëpp maa ngi leen waxal xaarim kontaan na xaarim gën na kontaan si yéen jàppale ngeen ko si zaahir ak baatin di gërëm Dalifor li ko dalee Dalifor ba pont ànd bi bàyyiwuñu kenn Kër Masaar ak ñëpp bàyyiwuñu kenn. kenn bàyyiwuñu amul kenn kuñ bàyyi ñëpp kontaan nañ vraiment ñëpp kontaan nañ di bàyyi moom ñi nga xam moo tàggat Xaadim tey moo ko tàggat ba fii moo toogoon siis moo toog lépp lu mën am moom la tey dañ naan nday mbili gaa ngi nii yàlla na yàlla dafal cat grand li nga tar si làmb ak li nga li la raw ci ak li nga xam waroon nga ko jot ay ndog-ndog tekk si yàlla nañ la ko mottalil ñun ñëpp nag yalla mën na ko yàlla na ko yàlla def ku baax nga ku yaatu nga ku mën a joxe cër nga ba ma ñëw rek ne ma yaa sama yoon new open presse ma ñëw nga ma yaa ngi fi sama néew si kon yal na la yàlla jàppale fi Aliou Sarr mel si ñun la dañ bëgg jour télé da xam ne yarax benn la benn la ñun benn lañ yaa ngi gis Moussa tey moo ñëw kër Xaadim tey Xaadim day ñëw kër Moussa Ndoye Xaadim day contact ak Moussa Ndoye open presse bu Moussa Ndoye Xaadim mooy def bu loo soog bu keneen ak keneen keneen si am ñun ñëpp ñoo yem amuñu benn problème te musuñu am problème li ñuy ñaan yàlla yàlla na ko yàlla def dama koy yàgg di ñaan yàlla na yarax doon benn ikiri des na si ñoom des si ñëpp na doon benn kii wu jiite jiite ñu dem Moussa Ndoye mën na mooy man maay taalibe yarax wax naa leen ko maay taalibe bi chaque jour maay maay seen taalibe maay seen ndong nañ may yónni may dem nañ may sant may def maay taalibe bi xaarim yàlla na ko yàlla defal ndam yu berem ci barke yonent bi barke Serigne Babacar si yàlla na ko yàlla defal daa woyof rek waaye sëñ Bas ku tudd yaraax tudd Moussa Ndoye vraiment drapeau yaraax yóbbu na ko fu ne coach su lay siyaar waaw ñu ngi fay sëñ bi waaw. waaw xanaa damay sof samay wax ci waxi musaa ndooy rek ndaxte dañ ne wax sa mbaaxu waaye du wàññi sax mbaax dara te nit ku baax moo mun a yëkkati ak mbaax di ko wax ci nit. yaraax nag man comme li ma wax rek benn famille lañu yaraax benn famille lañu genn golo la mais loo ci lu mu gudd gudd loo ci laal rek boromam dina ko yëg muy Moussa Ndoye keneen ko fi nekk parce que damaa dem ba stade coach Aliou Sarr woo ma jox ma ay conseil te man du ma xeeb doomu aadama. ndax Emerson daf ne woon tout tom que je rencontre m'est supérieur en quelque manière voilà je pourquoi je m'instruis auprès de lui kon mu nekk loo xam ne xam-xam bi doomu aadama bi ak loo am xam-xam ton prochain wala ki nga jàkkaar lool xel puso bu réer la man damay déglu ñëpp damay taataan ñëpp maa ngi sant képp ku yeewoo yaraax képp ku yeewoo Kër Massar képp ku yeewoo Dalifort maa ngi lay sant di la gërëm parce que man fédérateur la parce que boo gëmee yàlla yàlla ne waxtasimu bi abdillahi jamihan wala tafarraqu da war a gëm ne booloo mooy doole te ci biir moom la ñuy tàggat xale yi di leen boole nag ak yar ak discipline parce que slogan écrit askan bi mooy yaru yiw duñu salteel duñu def len fii nee naa la ay yaaram kese kese kese ñoo fi nekk man yara xaw ma fi bandi bu fekkee ne bandi am na fi benn lay doon mu nekk man mais ñi ci des ñëpp ay nit ñu baax lañu kon nag leen sant yéen di leen gërëm di xamal ne nag caatu commencé guñu mais li ma jaaxal mooy conseil bi bëre bi lan la ban conseil nga ko mujjee jox ni moom la waroon bëree ak serpent. waaw mais lii mu bëre nii rek ndax defe naa ne ndeysaan euh, ku bëre ak fi ñu jaar si bëre liñ naan ku la jiitu si néeg bu lëndëm moo lay wax ni ngay toogee ñun dañu leen di jiitu si néeg bu lëndëm bi rek xale yi dàquñu leen a bëre de yaraax fi la bëre euh, euh, sànq cosaanam ndax suñuy papa ak suñuy maam ñoo fi nekkoon. ñoom alaaji Ablaye Dieng yal na yàlla yokk leeram ñoom Pa Mbay saar ak ñeneen ak ñeneen parce que boo limee di nga juum mais ñi may wax nii mag ñi nekk yaraax ñoo ma ko gën a xam kon nag yaraax nekk na dëkk boo xamante ne bii dëkku bëri la li ñu gëm nag mooy incha ñun dinañ dem fu sori ci kattanu yàlla ñuy ñaan borom bi nga xamante ne bii ku mu tette nga yegg yàlla nañu yàlla tette ba fa ñu bëgg dégg ñu yegg fa waaw. en tant que coach euh, Serpent ban erreur la def ba caatu yaraax daan waaw Serpent erreur bi mu def peut-être que xam nga mooy ñoom la ñu foog ak li am ça deux ndax làmb ji li ma leen wax rek bu ñu la séenee fit da ngay fital bu ñu la séenee fital da ngay fit ñoom lañ doon préparé ak la ñu foogoon ak li ma leen indil maa ngi au passage maa ngi sant coach euh, serpent Mame Less parce que sama gaañ la ñoo bokk même association ANELS maa ngi sant waa ANELS yëpp. entraîneur yi fa nekk yëpp maa ngi leen di bégge ñoom maat lii ah, Mbaye Diallo suñu président may teg loxo bi nuyoo bi si loxoom mu nuyul waa ANELS yëpp képp kuy entraîneur nekk fii Yara Sénégal au passage ñuy nuyuwaale suñu directeur technique national muy Khalifa saw mi nga xamante ni dafa ñëw falu bees au entraîneur yi ànd ak ñoom kon nag lu rafet rek la ñuy def incha allah te lu rafet loolu moom yàlla bëgg yàlla lu taaru la bëgg mais nag ñu ngi si te incha allah serpent moom ah dañ koy wax mu conseillé parce que champion la champion la bu mu découragé ci làmb waaw erreur bi mu def mooy la mu foogoon taxaw parce que dafa taxawoon préparé def ay armam di préparé xeex ñun nag xaadim dañ na ko taxawal ci xef yi bu ubbee xef yi nga dugg ci bët yi est ce que dégg nga fi bët yi waaw déggoo ma de. déggoo ma de. taxawal ci xef yi. <laughs> Ah, waaw loolu waaw ñun parce que ñun noonu la ñuy joxee suñuy conseil parce que bu ñu la conseil am na yenn combat xam ne dañu naan tàngal bi kenn du ko yëy dañ koy mat parce que coach ay cote ngay warante ay joueurs comme ni système yi di defee. mooy da nga koy cons rek ndànk ndànk exactement parce que ki nga sa sa nit bu ñëwee sa kër doxaan si doxaan si sa doom da koy jox tàngal bu ko yeyee bu ko may sa doom de parce que il n'est pas patient mais da koy jox nga xool ko bu ko màccee nga xam ne kii bu yoree sa doom dina yàgg ak moom te dina ko muñal maanaam àdduna dañ koy maslaa rek dañ koy def ndànk-ndànk yàlla ci boppam ndànk-ndànk la bëgg loo gis mu ànd ak rabax mbiru seytaane la yàlla moo tudd latif mooy lan ku teey ki kon nag nañ teey li ci des incha allah ci kanam dina gën a deex incha allah. jërëjëf. waaw merci jërëjëf. kilifa gi. Euh, yaay papa ci caatu Yaraax maa ngi lay ziar. bi ñu ngi lay ziar lay delloo ziar. waaw di leen nuyu. di gën a sant yàlla rek di julli ci sang sang Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen xamal ne caatu li mu am nii dafa ko doon mbër gi da ko doon ñi xamul nag xamuñu waaye caatu dafa doon mbër te olof am na lu ñuy wax ne li ci cët maama koy jël caatu yaraax yaa xam bawal mooy maamam. Yakham Bawol ku laal songaan gay bu mba bu boo déggee ma naan Yakham Bawol benn yoon moom mooy nijaayu xaadim maamu xaadim maamam akkan mbër mi da ko donn te xaadim li moo ne yaatu yaatu li muy am li ci làmb des na sax wanegul dara des na te incha allah ndam mi day gën a yokk parce que yaayam liggéey na ko suñu kër yaayam liggéey na ko suñu kër te dañ na liggéeyu ndey añub doom te lii nag ceen bi la rek yan bi ñëwagul te incha allah dina dinañ lu dul dina am leneen lu dul lii la ci kanam rawuli bët jërë ngeen jëf. si ëppoon presse bi waxoon naa ka da daan moo doon na say maam fërale ay sa jaak manungu ay sa jaak Babacar ay sa jaak ten ma na boob ten ma xadisa bal ba si teeni naar sa maam faawa dewele sa maam bakkareeg dara maan arab loo maam ku ma jaam bugguma penda paate penda xaar yàlla mi coor fanta wele samaam yaa doone yaa doone ma taalibe yaa doona bukar faal yaa doona bu faal yaa doona bukar faal yaa doona bakar faal yaa doona ablay faal xam nga ni doo ñaaw xaadim daan da daan kon daan bi yaay borom waa yaraax nee nanu yow la jaat da ngay daanoo